léegi ñu ñëw waxtaan ci li nga xamante ne mooy combat guy gi Reug Reug ngeen di doomi géejawaay guy gi ñëpp xam ne ndaanaan la ci làmb mu dem ba ci biir ci làmb ay torof daal koy daal mu jël Reug Reug ñëpp ne ne du combat ñu ñëw Reug Reug mooy ñu bari ñu Reug moo mun guy gi en tant que doomu géejawaay te lan ngay wax ci combat boobu. waaw euh, alhamdulilahi rabil alamina man ay jamono sax doon nañ ma wooye guy gi mais guy gi ku ko yeb ku ne si bërëbu naanukaay ataaya yi nga koy yebe ak fu la écran yi tiime foofu nga yebe guy gi waaye bu arbitre bi sifflé ba ngeen dugg si biir géew bi si ngay xam ndaanaanu guy gi rëg-rëg bu mu sonal boppam guy gi da kay daan te incha allah ñun dina ñaan yàlla yàlla may guy gi ndam mu ñëw géejawaay si barki Seydina Mohamed ndax amuñu lu dul géejawaay amuñu lu dul géejawaay amuñu lu dul géejawaay Balla Gaye 2 mooy suñu leader Lac de Guiers 2 Alioune xam nga lees 2 guy gi ñooñu ñoom ñoo fi suñu ay mag ñun ah, mënuñu lu dul bootu ci seen ginnaaw di copier si ñoom kon mag bu si am combat dañ si war a xar suñu tànku tubéy ñaanal ko yàlla mu may ko ndam ndax ñun ñoom ñooy suñu ay idol kon guy gi yàlla na yàlla may ndam si barki Seydina Mohamed. guy gi moo gën xam nañu mbëru mbapat la mbëru la moo xamante ni côté mbapatam ñëpp karmasal lañ ko ko nangul guy gi tamit nag daanaan toog ay at yu bëri daanuwul teg la ay victoire yu bëree bëri bëri te combat boobu loolu doon conseil yu ñaar guy gi rek bu ñëwee runkum daje tey si géew lan nga war a wax guy gi lan la war a mën a bëree. dinaa wax leen na ñu gëm neex gëm. kum neexul bu ma gëm billaahi wallaahi tàllaahi rëg-rëg maa ko dàq bëri junni yoon teg ma fii si bëri man mbay ah yàlla xam na ko yàlla xam na ko xëy na nag làmba chance moo si am mais ñi ma xam-xam na ni guy gi egsi rëg-rëg ma fii si bëri lenn daal lay conseil guy gi muy bu mu fa sax nekk di xeex wala muy def neneen naka su dul noonu na def ni mu daan def au bi ponkal yu fi tëwoon yëpp da leen daan ni mu doon def au début na suul ay tànkam ci suuf léew ak moom Reug Reug soxlawul xeex bi coppet tànk ba la soxla na làmba bàyyi loolu soxlawul xeex bi coppet tànk ba la soxla guy gi lenn rek laa koy bàyyiloo xel mooy nu sóoraale suufam bu baax a baax a baax na sóoraale suufam bu baax a baax a baax. ku ci song song mu wóorul mën ngaa juum daanu jëli bëri. song bu wóorul mën ngaa juum mais man guy gi lu ma koy conseil mooy arbitre bi ni far mu fexe téye ngem bu rëg-rëg fu ko téye. si ngembam làmb ji jeex na incha allah loolu laay conseil guy gi en tant que mag ak rak.